ci loo ne na ngay doxal yow xam naa sonn nga mun naa see bugguma yi may def ma mu police sax bu dee maa ngi toog ma munaas teg ma sa wala la yow tamit nag. doo dégg menace bàyyi ma bàyyi ma like

waa dafa saar bu tiitee day mel ni damay tiit di ko sa affaire mi ngi bëgg ëpp de jël allez dinaa génn de waaye ci dikkoon laa jëm pour wax ne ko magam bi dee yaa ko agressé léegi yow nga bëgg waa bëgg ñu dem nga jëndal ma dibi mariage du affaire ëpp sax yaay Tafa Sarr lu ko dal rek dama koy sentir te instant bi sama fit bi mu ngi naan tëf tëf tëf tëf tëw arrêté yaay Tafa dafa jaaxle de. ma lay wax nii lu dëgg ci man. dikku demal nga jàpp ba sell nga ñëw naafi la ñaan suñu borom soo ko defee sa xol dina dal xolu tafaasaar dina dal. Merci beaucoup. Давай теряй. dama suuf. comment ngay toggee sa reer ba pare bañ ko lekk. aw ma appétit. est-ce que xam nga ne sa problème bi il faut nga régler ko une bonne ñu mën a nekk ci jàmm wàccal nga reer. sinon bu ma xëyee dinaa dem ci mère ma jama wax ko yaay xool. Birame bés bu la yàlla na nattoo ba nga dem ci mère ma jama nekk man maay xoola dinaa la bàyyi àddina àllaaxira comme bëggoo ma bàyyi nag wàccal nga reer. Ne ça va Ça va bien. Nekk si. nga wax laa dem baa bëgg nga ko. waaw man taalibe la bañu ma dara na seet te sell rek ça va. ça va bien. ራስ ግን ምናደው di kon moom ñëwul ci kër gi coow li bari mbaa tey bu fi sëy si woon moom kër gi du tas yaay daal loolu bul am lenn lu la ci jaaxal parce que Tafa du xale bu ndaw magum jëmm la te xam na bu baax ci li muy dugg te sànq yaakaar naa ni bàjjan ak mère Madiama ci deru dikkoon bi la ñu nekkoon. dafa maa ngi jégalu de keroog ndax dama laa waxoon soo ñëw dinaa la ubbi mais ndey fi di moo jëloon caabi moo tax mënuma laa ubbi. ah ok passé na il yàgg c'est pas grave grave. moo tax sax ma doublé woon clé bi pour beneen occasion bu amee nga mën koo utiliser. yaa doublé clé. waaw noonu

warul mën a takk dikkoon bu ko takkee xarit dina nekk lu ñaaw de. yaay wuyu ma sama si Tafa moom anam xarit sa papa mi ngi dëkk ba. ban dëkk. Kaolack Ndangaan. yaay da ngay foo wala. allo waaw ça va Tafa waaw maa ngi ci jàmm kay. léegi xam na lu ñuy def comme galax bi neex na à chaque fois. nag may woyal baal ma consume nga ko mën nga laa mii rek waaye woyal ma jigéenu ndey jigéenu ndey loo bëgg jigéenu ndey yoo xam nga ne barka jam ma jiite woon jàmbaaru tey mooy suñu maam bañ di ko taabu uh-huh. yéen ay lingeer bi moo di kon booy way leen xol bi day tooy yaa seen billaahi kon toll na leen ah bu baax suñu maam yow daa bëgg li ngay wax yëpp dëgg la mais bu fàtte ni kër si ngay waxal xam lépp doon tan fóore waaw dama bëgg nag nga wax ma sa teewaay fii quoi lan la. daa maa fàtte de. sincérité rek laa wax ak yow Koldou pourtant ma da ngaa fàtte dara da xam man dara saf ma taxaw ci digg autoroute bi oto yi di daw ma jalgandal seen kaw soo paara ak naan ndox laa yemal. xam naa loolu. kay mais loolu sincère laay wax ak yow ngay sama nag yaa ngi doy ci saal bi birum xaalis kenn doy ma ci ma war a dem nag ci notaire bi. bëgg nga gunge ma. yaa ngi ñu fàtte de man yaakaaroon naa ne maîtriser ma mais maîtriser woo dadaa man Kels lu jëm ci police chef de carte xaw ma chef de canton tribunal ak loolu ngay wax xaw ma notaire xaw ñoom nen man dadaa xam man xaalis def ma ko sama fii rek yemale ko ci dama koo sonn li du dulu xaalis xam nga la la dulu alal baax ah man de bu nekkee xaalis moom xam nga ne moom kël si ci xaalis lay dox man moom xaalis rek lay wër moom xaar moom ma ñëw léegi ak lii laa wax ma leen am na yoo xamante ne moom du xaar ah benn yoon lay am ci àdduna maa wax loolu ma jama Penda. Madam ha ko se wonde ba. Penda dama sonn. Wante yaa dal. Mhm, noppal ko. Baax na. Waa Penda, ma ñëw mm-hmm. nga ne tiil naan ma ane waa Pointe Sarène taxadee ngi taxaw. Tey moom def naa erreur waaye damaa jub maa ngi jéggalu bu baax. Wante fi nga demoon fa rek waaye baaxul ma jama numéro bi sept chiffres la de dangaa fàtte ne numéro yi léegi neuf te bii est-ce que doo ci dal foo jëm torino nga jëm si ndaama xanaa. ndax loolu. safari jëm. ah mais tata bu ma jommal yow jëli ci xaalis. xaalis balaa ci def. yëpp ngi woo say cër de. te nga maa ba ñëwee di pande. ñax mi di fecc mbalax di sama kanam ak téeméeri lëndëm lëndëm ma gis benn lamp buy tàkk sama fit bi di bàkk sama karaw taxu ma tiit ba nelaw ma dégg baat jigéen di woy ñoom ñu ngi naan borom xol wu rafet ma joxe bakkanam pour dëkkam borom pexe bu ñaaw mooy lekk dëkkam jox jigéen li lekk te mooy taxawu dëkkam jox jigéen ndekete mooy taxawu dëkkam suba suma la yónnee au moins nga oo ma téléphone ne ma li lii laa fi jëlee li la fi jëlee li la fi jëlee mais waxuma dara lan nga mujjé ak avocat bi. Tafa xam nga boma li moy ma rendre le compte mais suma ko deful rek am lu tax dama don xaar ba am certitude ci limay wut ma soog la rek moo tax la. attends yow tu veux dire que ni yow. dara sottiwul ñu ma doon lijjanti. ah mën naa ne jëlewu ma fa dara parce que ba ma fa jugee toog naa deux heures de temps après may woo avocat bi di ko woo di ko woo muy sonné dans le vide ba avant nga may woo maa ngi ko doon jéem a woo finalement boîte vocal laa jot. attends je vais l'appeler. dafa koy woo. avocat bi woo non non non loolu. non kii jëru ko c'est pas professionnel kii déjà fuite de responsabilité la def. que dama xamné ne yow mu leer la ni suba suba suba le procès bi nga wara plaider nit ki ba heure bi xamul ben information xamul lan la wara def ah xaw man man liñ ko demandé ndax dina mën nek ou pas renvoyer yeex yooyu xaw ma ci dara ki kay woné na ni carrément paré wu pour jàppale ñu jarul wo maintenant qu'est-ce qu'on va faire. bon ce qu'on va faire lenn dong la. plan A bo gis day and ak plan B. bolé nañ ma ak benen avocat waaw mais si comme on n'a pas le choix woo naa ko su féké né jubóo nañ ak mom tamit mun nañu plaider suba Tafa Tafa man bëgguma di gawa wax mais franchement affaire yi ñu ngi may xeeñ naqari te sànq bi may dem ci avocat bi daje naa ak ak Aram buntu tribunal Ndey Fili ak Aram te xam nga ñoom ci fexeel la rek lañu dëkk Bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Moustapha Sarr. Monsieur Sarr ça va bon nous ngi jégalu ci heure bi ce n'est pas grave. Mm. je comprends. Mon mm-hmm. frère dafa un procès suba partie civil, bi sax désister mais dossier bi un certificat médical. d'accord certificat médical bi ñaata jours d'indisponibilité la maanaam ñaata fan la waa di toog du liggéey. 21 jours. 21 jours. Mm-hmm. Ce frère moom anamu. moo toog nii. bonsoir maître. bonsoir monsieur. Moustapha Sarr. mais C'est un dossier bi dafa am un véritable problème. est-ce que sa frère bi toog heure bi le la ko fait. Dans ndax incapacité de travail bu weesoo 21 jours le mandat de dépôt est obligatoire. monsieur ça, même vous au au tribunal prison vous waroon donc de vous à moi je vous le dis très très très sincèrement il faudra prendre toutes vos dispositions oui moi qui agressé Badugu kasofa oh, oh, oh. oh. Piche mumbopom Ken xamul yabaram Dugu na ci yow Badugu kasofa oh, oh, oh. I be